ko teg ci loxoy Assane Thiam ndax tey moo fi représenté sama borom kër maa koy sant di ko gërëm di nuyu samay doom euh, Fatima Sy di nuyu John Cross muy xale boo xam ne bii lu muy def boole na ma ci ñoom ñaar ñi xale yu ma yu ma naw expertise bu ma am danañu ñëw ci moom waxtaan koog man te gis ngeen li ñuy liggéey ci réseau sociaux yi ndax président de la république ndax xale xale mën ñu ànd donc di leen sant di leen gërëm di wax ne kontaan naa li tax ma jiital leen ci nuyoo bi li tax ma gën leen a jiital ci nuyoo mooy li ngeen di wax xale yee tax ndax xale yi boo soo gis ay xale sa xel day dal te ñooñu gis naa ni ñu taxawee dama ko njëkkante bi ci doog a dugg si biir di nuyu nag képp ku dëkk ci amul kàddu ci jiital groupement déggoo defaru ndax nag groupement déggoo defaru mooy base u lépp groupement boobu lu ma am lu ma def ci ñoom la jóge ma leen di sant di leen gërëm di sant mouvement bi nga xam ne bii moom lañu ñu jiite depuis boobu muy MCAS di képp ku fi nekk ci MCAS maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di nuyu tamit ki nga xam ne fii moo fi jógee léegi di Lat Diop di ko nuyu di ko delloo euh, njukkalam ndax nag moo bàyyi ni kër kër yëpp ñëw ba sama kër kon defal na ma teraanga ma koy sant di ko gërëm di wax ne mouvement MCAS dara taxu koo jóg lu dul jàppale président de la république ci liggéeyam développement laa xam développement laa mën moom laa ci laay nekk te ci laay dee président de la république tey mi nga xam ne moo ñu fi boole dafa am lu bëri loo xam ne lii def na ko su ma mënee tey di taxaw fii ci am MCAS di wax c'est parce que y a des jeunes et des femmes yoo xam ne mënuma leen ñàkk bañ a cité ma ci jiital koo xam ne kii mu mel ni Sali Doumbouya wax na ko fi léegi sama mag la li tax ma koy tudd mooy su fi yegsee sax ya gëm naa ne moom la ndax ñun man ngeen ni dama ko mënul sax waaye guddi bëccëg suba ngoon mu ngi topp ci ñi xale yi topp ci mag yi di wax nekk ci tali jërëjëf maa ngi ne jërëjëf ñëpp ñoo xam ne ñi nekk nañu fii muy jigéen muy góor di nekk ci amoo 4 di amoo cinq di amoo 6 di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñii ñoo ñëw fekk si mouvement bi nekk de l'autre côté ku mel ni kundul su may tokk di luum damay juum waaye képp ku mën judul tey ci bés bi rek dama laa xëy na fàtte waaye du lu ma gënal MCAS nag réseau la su ngeen gisee sànq ma jox Fanta mu wax dafa bokk ci suñu réseau ni ñuy defee nii mu ni ñuy defee nii proximité fii noonu la ñu topp ci mouvement bi di ko defee ci proximité ci fépp du du du du Kër Massar du fenn parce que xam ngeen mouvement bi xam ngeen ay tentaculam bi parenage bi jotee dañ cee taxaw bu baax bi président yi tamit yegg see fii ñu war cee gën a mën a taxaw

kacha kawa kacha ak ka suuf donc politique bo xamné ci équité ak égalité rek la ko égalité territoriale luñu am Sénégal parce que ki nek ci all ba lamuy deureum moko mom waye ka ne fi tamit ci deureum bobu la bok. mu ne buñu ñu beddi bu ñu na ñepp and nek ben mu def lolu muy politique équité territoriale palette équité bi nga xamné bi moy entre ñun ñepp mo tax politique sociale am doy na c'est la première fois ñu gis politique sociale bo xamné bi

ba mu toogee ba tey ñam doon àndal lay àndal ñoom lay àndal parce que xoolul affaire parti dafa dépassé parti xool ku ne compétence ba nga am te mën ko mu ne la toogal liggéey xoolul mu ëllëgee da nga koo war a war xoolul leen kooku patriote moo koy def bépp projet boo xam ne fekkoon na ko fi mënoon na ne lii dootuma ko weggale wala duma ko fi def ndax kenn na ko fi def muy donc signe boo xam ne dafa wan ne c'est un républicain nation moo ko intéressé valeur yooyu duma dugg ci ay réalisation ndax xale def nañ ko man damay ñëw ci ay valeur am valeur yi nga xam ne Sénégal loolu la xam valeur yi nga xam ne suñu diine loolu la loolu la loolu la wax valeur yooyu la président de la république am loolu laa ko nawe naw boobu moo indi man ku ma xam-xam ne ne li may def li ma ca mën bëriwu ci waaye da ngay toll foo xam ne bii doo da nga dul moomati sa bopp te moom li muy def man gëm naa ne niru na ak li ma gis ci li ma bëgg ci àdduna nit ñi nañu yem mbubb mu diis taxul ma ëpp kenn dara toog place fu teew taxul ma ëpp kenn dara yàlla rek mooy séddale place ba nga nekk tey bu subaa di nga fekk suuf kon kenn warul la ragal kenn ndax nag yàlla rek mooy maye te ku mu may nga toog ku mu dee nangu nga jël sa bagage. tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu bu baax waaye. loolu dafay loo xam ne ay valeurs yu ma gëm ay valeurs yu ma yu Sénégal xam ne loolu la war a demee. ay valeurs yoo xam ne moom laa bëgg a xaw ma ndax maa ngi koy incarner ou pas mais dama bëgg a mooy humilité mooy justesse mooy dëgg fuñ ko fekk ñu def ko fa loolu mooy li ma ñaan yàlla di ko incarner valeur yooyu nag fekk naa ko ci sama leader fekk naa ko ci suñu candidat fekk nañ ko ci ki nga xam ne kii mooy président Macky Sall kon nag loolu ku ko am niti diine yi ñaanal la niti église yi ñaanal la say waajur ñaanal la boo yeboo daagu fuuta nee na waaw kawlax nee na waaw ndakaar nee na waaw jurbel nee na waaw lingeer nee na waaw ñu nee nañu waaw kon nag li des mooy mu gudd mu gàtt la 24 nañ ko dóor mu daanu ndax ñoo fi ne nañu teel ñu teel a xam ca bureau ya teel a voté ci jàmm ndax après 24 février yi tamit adduna bi day continuer ku ne sañ nga nekk foo nekk waaye nañ ko def ci jàmm ndax Sénégal ñoo ko bokk kenn mënu koo xar ñaar nañ ko def ci jàmm nañ ko def ci teey nañ ko def ci ànd ak lépp li nga xam ne lii mooy lu ñu xam dem voté ci jàmm ndem gisi ci jàmm ñu am ndam ndam boo xam ne bii kenn du ko naataable

te ñu wax ko fi jonn wax ko fi Fatimata wax ko fi sama frère et sa mari am wax ko fi buñ ko war a consolider mu dem au niveau international di laaj ñaar dërëm ñetti dërëm ñu jox ko juróom-ñeenti dërëm kon kooku crédibilité internationale am kenn waxatu ko dañuy sant yàlla ba nga xamante ne lii la war a tax xale yi gis seen bopp gën a gis seen bopp ci politique am mu ngi ci poosam bàyyi 24 février jàll moo tax mu def ko nee na li may fi ma jëm xale yee ko moom ndax ñun jigéen ñi dañoo yàgg a defal de 74 ba léegi ñu ngi fi maag ba léegi kon nag yéen xale yi yéen a moom deuxième phase yéen a moom deuxième phase comme nag Fuuta nee na wii Casamance nee na wii centre bi nee na wii ñun nee nañu wii kon nag yëf jeex na maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf